vraiment di sant ñëpp bu baax a baax très souvent nag dañuy wax euh, sooy wax lu la ñor ci langue bi nga nàmp nga koy waxee bëgg nañ tubaab lool nag waaye man tey je euh, vraiment parler en wolof pour euh, jàllale sama message parce que daf ma ñor mun damay door sama kàddu ci euh, ay remerciements d'abord parce que loolu moo ñu fi indi li wolof naan lu jig njaag yay njaag tey aussi suñ fi nekkee ki ne njaay moo tax wax dëgg moo initié lii lépp kon ñu delloo ko njukkal tubaab naan faut à César ce qui appartient à César mu ànd ceeg liggéey bi Mamadou Ndiaye aussi un homme discret wax dëgg yàlla

Awa Dakono ànd ci ak suñu jeune frère Mohamed ànd ci ak suñu sœur yi nekk ci ginnaw Marie Ba ak Mama kon di nuyu ñëpp bëgguma won sax duggu ci limi parce que ku lim juum une mention spéciale aux représentants de Dan France qui sont venus quand même de Marseille on pense à notre doyen Albouri à notre sœur qui vient de Pas-de-Calais avec toute sa délégation à notre maman qui vient de Bordeaux wax deug yalla kon ñu ngi leen di nuyu di leen sante man nag damay politique depuis 2019 ci opposition l'a commencé avec ak président Macky Sall mu ñor ñu nek suñu leader ñu gëm ko ñu dëkk dëkk bu ñuy wax Linguère le leader aussi nek Ali Ngouille Ndiaye muy aussi ku ragneku comme ni suñu natangu bi waxee Sank, suñ na Jolof euh, ku nek amna luñ lay baké waye suñ ne jolof jom le fayda kon suñu ko ministre de l'intérieur sous président nous confiance ci aussi du hasard di nuyu ñep di di aussi cette and bi Nous... ak président de la république mu yag lool di ñaan au soir du 24 février inshallah sans tour ñu gagné élection présidentielle sac la ci Sénégal sac la ci président Macky Sall sac la ci ministre Aly parce que suñu borom dafa def président dénk ko cër bu am solo muy organiser élection ku ne xam na li nek ci organiser élection waye inshallah allah amuñ ci benn siki sac di dag touti rek di dalal suñu siste Nafi mu yor mouvement bu am solo ñu bokk aussi comité électoral ESOL mu agsi légui amone démb aussi événement bu am solo wax deug yalla dalal jàmm siste euh, euh, Nafi Diaby mënuma wax te waxuma ci politique président de la République je vais faire l'économie du bilan parce que wax nañ ko à travers la projection de films thématiques. waaye damay faral di wax ne tay sumu nexé neexee ku mu nga sa loxo waaye 2012 buñu fatali né bi président di jot réew mi ci condition yu metté metti la ko jot à la veille des élections, il y avait 12 morts qui une violence post-électorale. Il y avait des émeutes de l'électricité en 2011. avec le mix énergétique, avec la politique du président, avec le DG Martar Sissé, tey wax a ko fi sànq ci panel yi wax Sénégal atteint sa production li ci des rek distribution bi stockage bi am ay machines am ay instruments kon loolu bu ñu koy suñu maam mi yëngal réew mi temps yii bi muy jógee ci bopp réew mi daf ne ñetti weer laa leen may dootu ngeen mën a fay saleer yi te muy lu wér lu ñëpp mën a teg seen bët kon tey président dafa jot Sénégal ci jamono yu métti maanaam daf suñ ko doon méngaleeg nit cëri yëpp dafa feebar kon nag nit suñ ko war a faj te cëri yëpp feebar du wax dëgg yàlla ci juróom ñaari at lay don

sans problème nga dem en 15 minutes jógee Linguère tay suñu wa deuk su wéru koor bi jotone dañuy dem ba Linguère difa glace 200 francs 150 francs tay avec le mix énergétique avec l'énergie solaire am nañ courant ba ba wéru koor su jotaté dañuy produiral sen bop glace changement c'est du concret suñu né progrès loolu moy progrès nit daf lay fekk ci un point A yóbbu ci un point B li waa ji wax nag président Macky Sall fi mu ñu jëlee fi mu ñu jëmee ko gën et ku ne mën na ci teg sa bët. moo tax su may gis ndaw yi ci Facebook bi su may gis yenn leader yi di fëgg dënn manque d'expérience la rek jàpp naa ne yàkkamti la aussi su fekkente ne da ngay dénoncer ab système ba pare ñëw. De bëgg l'incarnation du système loolu jàpp naa ay naxe liñuy wax rek ay les racines d'un arbre ba paré bëgg aimer l'arbre tay am na fi ñu doon wax né ñañu jité depuis les indépendances suñ leen talon sax du bàkkaar tay ñu ñëw yaakar nguur tax ñu yaakar né ànd ak ñoom dina tax ñu am nguur la population sénégalaise est une population mature yewu nañ bu baaxa baax am ci ñeneen ñoo xam ne dañu yàgg critiquer li président di def rawatina ci côté social bi ñu ne baaxul waaye tey nangu nañ nee nañu su ñu amee nguur dañuy def politique social waaye ñoom mieux dañuy jël famille bu nekk ñu jox la ay bourse sociale loolu ay naxe mbay la wax dëgg yàlla ku ne xam na ne famille sénégalaise yëpp kenn mu leen jox bourse sociale soxlawuñ ko sax ñi gën a néew doole dañ leen dimbale waaye nañu fexe ba Sénégal émerger

et jàpp naa ne loolu jigéen ñi bëgguñu loolu soxlawuñu lolou kon japp naane ne coow li mën na bari wax ji mën na bari waye suñu xolé wax dëgg yalla mobilisation ci campagne bi suñu xolé réalisation président Macky Sall depuis 2012 lam fa fek ak lim ci def wax dëgg yalla ya a photo ben exemple la ci jox fofu lay terminer ñu bayyi aussi suñu euh, animateurs yi ñu animer parce que aussi amna ci solo trop ci meeting bi. mooy wàllum énergie bi wax nañ ko waxati ko man damay sawar di ci wax amul benn réew buy développé wu ci àdduna te amul énergie bu baax muy ci àll ba muy les grande industries et yàlla dafa def président Macky Sall waxul rek lii laa liggéey fi laay yem daf ne su ngeen ma joxaatee nguur gi am naa lu may tuddee cinq grandes initiatives incha allahu rabbi yooyu laay jëmmal bi ci njëkk mooy du ma ne bi ci njëkk parce que du ma ko jël par ordre waaye industrie industrie mooy ñun dañuy produire yóbbu à l'extérieur ñu transformer indil ñu ñu jëriñoo damay tooñ sama mbokki Côte d'Ivoire yi euh, souvent meilleur chocolat est produit en Suisse pourtant Suisse amul cacao tey jus d'orange yi ñuy jaay xëy na am na yu ñuy béyee fii waaye bari na yuy nëpp Casamance tey avec l'industrialisation incha allah Casamance yi dinañ non seulement mën a jaay transformer seen orange. Sen mangue a énormément de choses très souvent suñu waxé rek mango li daj moy waye mango liñ ci def lek moy li vinaigre de mangue amna cidre de mangue amna ci produits cosmétiques yi luñ aussi du très cher à l'étranger lolu moy benn point bi ci top aussi moy la jeunesse le président Macky Sall daf sama deuxième mandat bi jigéen ñi ak qui la koy jaglel et nous koy mandargal moy le DER délégation à l'entrepreneuriat rapide woné nañ ko gis soxna yi ak am solo yi ci am contentement. dalal Mohamed Seydi andak doyen suñu grand frère Moïse, le directeur de l'EGE moi, le patron des étudiants en France dal leen ak jàmm ci gene su asaka Waye su ñuy wax ci président su ñuy wax ci suñu ministre Aly Ngouille dany dañuy ànd ak cawarte dañuy bëgg tamit yaatal bu baax parce que li def dafa yaatu suñ don wax fii ba suba ba ginnaaw suba du tax mu jeex comme aussi obligation yi dafa bari dañuy rek Gatal, pour aussi mën may ñeneen ñi fi ñu bëgg dem ñu dem fa kon fi may jeexalee rek moy faire le choix de la raison moy voter Macky Sall le choix de la continuité moy voter Macky Sall mu précipité ñu inshallah ci le progrès ci l'émergence ci gattal dem len consulat ngeen jëli seen carte yi seen carte mu ngi fay xaar préciser aussi amna solo parce que xeyna amna ñu nek ci salle bi amuñ information bobu waye képp ko xamné danga bokku ci lu ñuy wax 78 wala nga dëkk euh, euh, euh, Mulhouse wala nga Nantes wala nga dëkk jolie wala nga dëkk Orléans da ngay dem consulat nga jëli carte duplicata parce que dañoo changer carte maintenant pour les nouveaux centres de vote donc lool une benn information benen bi aussi képp koo xam ci sa carte voter. mais ça dépasse 55 da ngay dem aussi ñu indi le duplicata di ñaan di nuyu ñep di siyaare ñep bu baaxa baax mention spéciale encore à toute l'équipe de Dan à la coordinatrice Fatou Kiné di nuyu ñep aussi benn par ben ku ci nekk fo joggé parce que aussi yombul nga wote nit ñi wuy ci la kon machallah di jox kàddu gi rek suñu animateur animatrice yi animatrice bi wax deug yalla jambar la c'est une jeune Star aussi day wey machallah xarañ lay def ci ñu war ko promouvoir war ko aussi japp président fofu la tek tankam pousse ndaw yi ndaw mention spéciale arabe merci pour l'animation téléphone bi ñu def benn vidéo deux minutes ñaar rek